des contrats afin de APR tontu na nag euh, risque de poursuite euh, contre le gouvernement alors risque de poursuite judiciaire et condamnation contre le gouvernement afin euh, la la renégociation des contrats par l'ancien régime bi nga le autorité annoncé Euh, ñu daal di xoolaat li na xam nekk moo di contrat yi na nga xam ni itam noonu la ko Macky Sall daal di joxe woon waaye itam ñi nga xam ni itam ñu daal di fare si moom euh, ginnaaw conférence de presse bi na xam ni itam doon nañ ko daal di amal Arfan ñi ngi euh, dénoncé li na xam ni itam su moom ñu daal tuddee comme des agissements infantins maanaam jàpp ne lu nu mel yëfu xale la ak yëfu ñàkk fayda la exactement le fait que nous euh, avons li pas contrats, les contrats def euh, dans la continuité de l'état nous parce que la renégociation des contrats signés sous l'ancien régime soit santé extractive entre autres entre autres euh, le Sénégal bien danger et que nous avons su topé li nga xam euh, poursuite judiciaire exactement alors donc le Sénégal va s'exposer dans des poursuites judiciaires et des condamnations pour rupture brutale sans fondement si ce n'est pas la volonté du principe arfan exactement donc ñoom loolu leen alors question de moi lan lañ signé loo Ousmane Sonko. voilà voilà la <laughs> question lan nous signé. loo xamante ne bëgguñu Sénégalais yi découvrir. parce que découvrir voilà voilà. man ñoom samay gaañ lañu. mais mais samay gaañ lañu. waaw mais ah, Fallou waaw mais yaa ngi commencé ñëw de <laughs> léegi yaa ngi nekk nandite yaa ngi commencé nekk nandite nag. génn naa kër dof waaw waaw gën génn nga nag kër dof yi léegi yaa ngi commencé nekk nandite xam nga boo gisee ñoom Abdou Mbow di wax nii. Eh. loolu mooy wane ni que dañoo yàbb sénégalais yi. ñoom Seydou Gueye dañoo yàbb sénégalais yi faale wuñu sénégalais yi ñii war nañ comme euh, euh, comme adresse trahison parce que nous xam nañ ko wax ni gis nga ñu état continue may ma may ma may ma may ma ma wax sénégalais li ñu bëgg a ah, gis nga la question mooy lan sénégalais découvrir ko ci sen signature contrat yi. Hmm. Voilà l'interrogation euh, bu gën mag. Il y a quelque chose qui se. te oui oui il y a quelque chose qui se trame te incha allah dinañ fay egg ñom jomay ak Sonko dinañ dem ba découvrir ko ci lan lañu signé ay contrat ya ma neex la signé loolu moy woné que wa Benno Bokk yaaka respecté wuñu sénégalais yow nga gérer ce pays pendant 12 ans nga signé fi ay contrat ya ma ne qui te permet de prendre des micros pour wax lu la né nee naa la ñu tekkiwul dara ci Benno Bokk yaaka la yabal dem ba pour ñu wax ñom Seydou Gueye musuñu leen dara moussa lañu porte-parole du gouvernement Les hmm. ministre conseiller sans portefeuille qui dara dara la yebal pour ñu ñëw arrogant si si kanam parce que que moo lay wane waa Benno Bokk Yaakaar faalewuñu texte une loi Nous ba pare yab sénégalais yow les contrats pour le bien-être de tous les sénégalais

di commerce bo xamante bo demee ci tribunaux yi gan yi gëna mag dinañ ne signature bi baxna waro ko laal kenn du ko laal mais bu fekkee yoon may na sañ-sañ Sénégal pour mu renégocier yenen signature dinañ ko renégocier renégocier mais jomay loolu la wax waxuñu ni contrat yépp la lañuy renégocier dañu né contrat yo xamante ne yoon moñu may sañ-sañ sañ jalkati ben yoon pour mu renégocier ko dinañ ko renégocier gis nga ñoom lu ñu doon wax ci ñoom jomaay ba ñuy ne dañuy wàññi les denrées de première nécessité lii lañ doon wax mënuñu dara dañoo tële abu produit kenn du ko wàññee nii lu ñuy wax ni loolu mooy wane ni que amuñoo xam-xam. ñuy nappi ñu ñëw wàññi ñëpp gis ko ñu ñëw wàññi ñëpp gis ko. Hmm. ñu ne dañuy renégocier contre renégocier waat contra yi ñuy taxaw encore di woote ay point de presse dina non enfantillage mënuñu ko def ñoom ñu ngi nappi de dinañ gis ni dinañu renégocier contrat parce que jomaay loolu la wax. ba pare ñoom da gis nga mag bu rus gàcce bu la jàppee gàccee bu la jàppee te yàlla def amoo argument dangay ngay ne maa tey waaw léegi maa tey léegi ma xool ndax di ma dóor mag bu rus loolu lay wax parce que bu demee ba amatul argument loolu la lay wax léegi maa tey ma ma tooñ la ma ne la fàllu nga ne ma yoo def nga ma lii ak lii yaa ma tooñ ma ma dem man arfan aw ma argument yi may répondre dama lay ne léegi fàllu maa tey léegi fajal ko bu dee mën nga fajal léegi maa tey waa Benno Bokk Yaakaar loolu lañuy def nii dañoo def lu rusulu gàcce jàpp leen moo tax ñu ne wéy état continuité la wala laal contrat yi boo ko laalee mën nañu toppee nguur xanaa ñoom ñoo ëpp ñi xam-xam au au sein de la coalition Diomaye président amuñu borom xam-xam ñi mën tax ràññee contrat bu baax ak contrat bu baaxul ñom pour ñom wa Benno Bokk yaaka ñom ñoo gëna am xam-xam fi ci réew mi ñoom bu xam-xam duñu plonger ce pays là da ci goute lool mo lay woné que bon Benno Bokk Yaakaar waxuma ni que amuñu ñëpp amuñu xam-xam de mais ñu fa am xam-xam dañoo néew yu si yëpp yëpp yu si bëri ay des clientèle politique la ay politiciens la ñu amul n'a xam-xam Nous fa nekk comment tu peux dire dans ce pays pour que le nouveau régime mu bañ a renégocier les contrats au Sénégal am 10 de pétrole. alors 10 alors c'est nga ne ñii buñ ko renégocier buñ ko renégocier loolu enfantillage le loolu moy woné que amuñu xam-xam hein loolu moy woné que dinañ dem ba topé rewmi judiciaire qui judiciaire son contrat même si d'ailleurs contrat dañuy dañ renégocier français renégocier la loi que imposer un lu ñu bëgg ils vont renégocier les contrats mm. renégocier. Mm. le français la bu Abdou Mbow Seydou dem de renégocier la que imposer seen barème société dañuy dem càmbar parce que société buy exploité Woodside Energy dafa ne moom dafa am xaalis bu mu dugal ci exploitation xaalisam la dugal maintenant balaa ñuy séddoo il faut que moom mu rembourser xaalis bu mu investir ba pare ñoom jomaay loolu la ñu ne dañuy dem càmbar ba xam ni que lu mu wootee ci xaalis ni que moom la dugal foofu dañuy dem def ay enquête ba xam ni que moom lu mu déclaré ci xaalis réellement ni moom la dugal ou pas bu faites du non la dugal ñu ne ko yow enquête yi révélé que que ni que ci nga dugal du alors c'est clair mais baaxul. sénégalais bu dégg war na war na que ni lu baax la bëgg réew mi mais taxaw ci point de presse di naan renégociation contrat yabel la enfantillage le, yow parce que yéen da ngeen tële ñoom dañoo tële Bokk dara à part cette poste détournement sur détournement détournement maquiller les chiffres surfacturation loolu kese la ñu mën. Hmm. loolu kese c'est kese c'est ñu mën dañoo tëlee seen mentor ba mu dem Macky Sall lañ def dañoo gaawantoo seddo xaalis réew mi dañoo gaawantoo séddoo xaalis réew mi di def ay décret de dernière minute de nomination de yokk salaire loolu la ñu xam loolu kese la ñu xam ñoom copar ñoom copar la ñu xam loolu la ñu xam billahi loolu la ñu xam copar la ñu xam ku bëggal lu baax Sénégal ñoom dañ lay xeex ñoom dañ dañ lay xeex il faut que sénégalais yi ràññee il est temps pour sénégalais yi ràññee ñan ñooy les vrais patriotes ñan ñoo bëggal Sénégal décoller Sénégal développé ak ñan ñoo ko bëggul. Eh ben, parce que ku bëgg Sénégal développé da ngay encourager nit ci lu mu ne day dem renégocier waxul day dem imposer prix am de. dafa ne day dem waxtaane waat hmm. loolu ku wax loolu danga koy jàppale ci loolu loolu da ngay xam ni kooku kooku bëgg na Sénégal alors c'est clair Arfan merci beaucoup teel foofu sa baaraam ñu ñëwaat euh, ñu dem euh, li ko soriwul dara euh, foofu si daanook assemblée nationale